salaamaaleykum fa Mifa salaamaaleykum Géejawaay salaamaaleykum képp kuy dund hip hop eh, di leen wax ni suñu bébé dafa génn muy freedom et eh, sa clochard gang xam nga yaa ma gën a noo tey dafa nekk jour ba nga xam ne daa day marqué suñu histoire quoi parce que tey lañ génne suñu premier mixtape freedom eh, di bàyyi gas mu sànni ci kàddu et mu présenté wu voilà. salaamaaleykum tout le monde c'est GMX aka Knowledge from Closer Gang yeah comme ni ko Eh, waaw loolu moo am le 12 décembre la ñuy génnee suñu taaw waaw xam rek mu ñu bëgg nag mu nekk bu am quoi sincèrement parce que projet bi Freedom euh, musicalement il est riche et côté thème aussi pareil quoi donc on vous on vous suggère d'aller découvrir xam nga euh, li li jot a tënk d'ici euh, d'ici bañ commencé ba ça fait six ans donc euh, expérience bi ñu par de par nos les festivals les collaborations et tout ça xam nga di leen wax ngeen dem déglu ko euh, am ci ay daaju nopp le ma xam. Euh, freedom moi tant tant que amoo liberté nit ki atteindre ses objectifs parce que à chaque fois dañ lay dañ lay noot chaîne yooyu boo ko brisé wul ko am donc freedom bi dafay euh, dafay demee ci cadre particulier après mu mujjee ci cadre général euh, cadre particulier bi mooy là nit ki en personne da nga war libre pour réaliser son objectif comme ni mu ko freedom par rapport aussi euh, ak sa mentalité freedom par rapport aussi ak ni ñu l'Afrique par rapport à l'Europe xam nga nit ku ñuul ki ak ku donc dès dem day commencer ci nit ki après mu mujjee ci xeet bi mu mujjee nekk Free euh, Liberté boo xamante ne day général quoi. waaye euh, album bi am na neuf morceaux premier morceau bi nekk Gérétu Euro deuxième bi nga am Boutel troisième nga am. Takkandeer Gas Inscription quatrième nga am Takkandeer cinquième nga am. Euh, ñàkk du fen ci taw sixième nga am Célébrité hip hop. sept nga am. langue freedom. waaw huit nga am langue ay neuf mooy bonus track bi mu nekk ña ña ñaq kii nit ndokkale boobu la ñuy sadab ñëpp ñu jàpp ci projet bi parce que projet bi sooy xool nekk na projet ba nga xam ne sonal nañu trop parce que depuis mun naa ne depuis deux mille 2016 ñu ngi ciy nekk di ci liggéey avec un gars ba nga xam ne dafa jógee kaaw uniquement pour ñoom pour job ak ñun ñu dem ba si cappaandaw gi studio bi làq xam nga ñu demaat ci biir xam nga bañ a bàyyi génne fi compilation ak J-pop di remercier bu baax Malal parce que Malal amuñu fayam Sénégal dafa soxla genre mel ni Malal quoi parce que Malal mi ngi jàppale jeune Guédiawaye Malal mi ngi jàppale hip hop bi Malal tey jii nii su su mixé bi génnee nii c'est grâce à moom parce que da dugal loxoom bu baax baax a baax baax et tamit du ñu fàtte door parce que door tamit son yu bëri si si si mixé bi lyrique lyrique lyricalement moo ñu ko changé loo et que tey jii lu bëri lu nekk si ñun moo ñu ko moo ko def ñun et que mixé bi daal lu ma la mën wax moy lan amna continue quoi amna continue par écriture yi par son yi par design wa wa son bi ma gëna a frappé ci mixé bi moy son bouteille, bouteille bi parce que dafa nek son nga xamné gaay gars yi ñoo ñu pour ne pour que ñu def ko parce que au début naru won bokk ci projet bi parce que projet bi six son la won au début mais on nous a dit que ni fokk ñu yokk ci ay son et fokk ñu yokk ci nouveauté et que pour ñu yokk si nouveauté waruñoo def comme suñu morom yi di def quoi dañoo wara def comme ñun nu ñu mun di def quoi moy indi benn tous personnel et que depuis le début ñun fofu lañuy fofu lañuy démé quoi parce que suñu benn ganaar dañoo wax mënu il s'appelle Ziggy Ndiaye quoi mënuñu dama leen xolé comme wa daara ji quoi ça veut dire que boo leen ñëwee da ngeen wara indi kon tous bu bees et raison pour laquelle son bouteille bi ñu jël ci benn illustration comme comme salbe quoi suñu maman salbe. mais di di waxale suñu bopp quoi parce que ñu ngi wax comme mère nanguna paa bi ñaanal ñu foog ñu sangatu suñuy butéel ça veut dire que ni comme jot nañ ñaani xam nga ñëpp jàpp nañ ci lu des mooy su ma ko bëree kese quoi et que tey nii mixé bi tey day wane ne waaw essai dugg si combat bi bëre daan ñibbi xam nga ñibbi si géejawaay waaw comme nu ko nu ma ko mun a waxee rek xam naa damay wax tuuti bàyyi gas mu yegali mooy mixé bi waa géejawaay ñoo ko moom mixé bi waa Sénégal ñoo ko moom mixé bi. waa àdduna ñoo ko mais tay bu défé defee mixé bi c'est pour woné aux gens que ni nekkatuñu ay boy quoi màgg nañ et que tey jii ku def ci musique 6 ans dem participer ci festival yu bari Festa 2S Guédiawaye hip hop banlieue francophone fraternelle xam nga j'ai pas mal de de raisons nekkatoo boy quoi et ça il est temps xam nga suñu ñu jël suñu wàll si nak bi quoi et que damay baye gas mu wax population Guédiawaye xam ba pour dire vrai euh, ñun réponse boobu day xaw mitigé quoi parce que comme grand yi nga wax ni fii Guédiawaye am na ñoo sincèrement am nañ link boo xamante ne weesu musique comme euh, grand Fou Malade bi nga doon wax noonu euh, ak ak yeneen artistes yu fi nekk comme ay As the Best. Euh, ay 814 dañuy dañuy dañuy link dañuy dañuy xama manam am nañu relation quoi mais par contre am na ñoo peut-être euh, dang nga leen di maanaam da ngeen di fekkante ci concert da ngeen di rombante link bi demeewul noonu quoi mais par rapport à la population Guédiawaye man je dis que ni accueil bi je pense que ni dina nek accueil bu chaleureuse parce que euh, tout est tout tout lépp départ bi la quoi fii nii dafa musa amoon dafa musoon am hip hop suñu grand ñoo ko fi doon def dem ba benn moment euh ñom xama ñi voyager ñi am ay soxna nekatuñ ci quoi. d'ailleurs lolo ñu gëna pousser à ce que ñu def hip hop parce que ñun ñom dañu bëgg lo hip hop ba paré baay hip hop ñun ñu jël relais bi. d'ailleurs la suñu premier son c'est Bring It Back Bring It Back moy délo ci war hip hop bi man mañ ñu groupe suñu premier son loolu tuddu quoi donc c'est juste pour wax gaay ni li saat bi manké won dañ ko dañ ko dañ ko indiwaat mais peut-être d'une manière beaucoup plus euh, vaste parce que euh, sonorité, yi dañu dañu évoluer sonorité yi dañu différent couleur yi aussi dañu différent mais je pense que Guédiawaye dinañ ko bëgg incha allah. <laughs> ok eh, parce que euh, li may wax ni cri cœur la quoi et que tamit lu mu ñor là quoi parce que bëgg naa tamit moom fu mu mënta ne mu déglu ko quoi nga ban la jàppee si foobee bi ñu ñoo sacrifié wu def son pour yow ñun ñoo noon dajale suñu xaalis pour fekk la jeel ñun ñoo noon dajale suñu xaalis di ñëw chaque vendredi pour mun di la seet say audience mais pourtant tey ba nga génnee ay yeneen xarit nga am ay yeneen àndandoo nga am pour vous dire vrai mooy bu ñu lëre ko bu ñu lëre bi mooy lan géejawaay nga dëkk mais nitu géejawaay day wane ni géejawaay laa dëkk mënoo dëkk géejawaay di yeewoo almadi boo dëkkee géejawaay da ngay wane ne man géejawaay laa dëkk da ngay job pour waa géejawaay def pour waa géejawaay di tiisuroo géejawaay di wax pour waa géejawaay juste benn message rek parce que tey jii nii boo toogee nga ni dawal dawalkat du seree di nekk Mass Sam saa boo leen rombee da nga ni jox 1000 francs loolu c'est archi faux au vrai que ni ñooñu ñoo doon dajale seen xaalis di la ko di la ko yóbbul di ko jox sa mère pour mu wutal la avocat mais tay da nga nelaw nelaw moy lan waroo def son di ci classe ñooñu waroo def son di ci classe rajo rajo parce que kooku il a fait tout pour toi waaw loolu rek la amoon ci lu may passé quoi. waaw comme taw bu góor rek seen taw la Freedom. waaw di leen wax ni euh, mu ngi disponible ci toutes les plateformes de téléchargement. di CD bi disponiblement disponible na aussi physiquement ku ko soxla boo ñu rapproché di ci jot di leen di di di leen di leen di leen. di leen ñaax aussi xam nga ngeen déglu ko déglu ko attentivement euh, bien vrai que am na ay richesse mais nit matul quoi ñun dañuy soxla ay retour par rapport ak population Guédiawaye parce que comme comme li gars yi wax rek ku ku sa waa koñ ngemb dem daan dalay yomb quoi te ñun yaakaar nañ ni waa Guédiawaye dinañ like affaire bi yéen di ngeen ko bëgg di ngeen ñu gën a poussé quoi en fait ku bëgg am cassette bi mun a woote ci numéro 77 155 165 30 70 wala mu wote 70 708 53 08 et que mun na koo mun am via tamit YouTube dugg suñu page YouTube def Clochard Gang xam nga mu abonné à part de tay su goudi dina am foofu noonu son yépp quoi et que tamit pour wax gaay yi ñu japp ci support bi quoi parce que tamit ñun li ñuy def ni pour géejawaay la lu ñuy def ni pour suñu kon la lu ñuy def ni pour sokoli rab géejawaay la

et à chaque fois nous avons une compétition à chaque fois nous avons une compilation à chaque fois nous avons a événement mais au final ñun comme si que ñun bokkuñu ci ci commune bi quoi et message bu lancé et que tamit te remercier wuñu quoi parce que nous ñun ku ci nous et que grand et whatever tout le monde et que yow tamit wa waa wa info xam nga amuñ seen fay waaw one love freedom ci kaw. ci structure culturelle aussi pour ñu saluer leen parce que ñun musicalement suñu si si tey suñu maturité bi. fa lañ daan dem di taataan xam-xam maanaam di leen fa lañ fréquenter comme hip hop MCI actuellement sax nii nii nii ñu problème pour dañuy parce que ñenn ñi dañuy jàpp ni J-pop lañ nekk ñenn ñi ñuy jàpp ni africulture lañ nekk. mais ñun suñu own self lañ nekk c'est-à-dire dañuy job suñu yëfu bopp xam-xam la ñuy uti ci structure yooyu parce que structure yooyu dañ fi nekk pour ndaw ñi quoi.